bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu sante suñu boroom subhaanahu wa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 ñoo ngi nuyu jàngkati alxuraan yi ñoo ngi nuyu jàngalekati alxuraan yi di leen siyaare bu baax a baax ñaan mboolem ñi nga xamante ne ñi ngi topp jotaay bi yal na borom bi subxanahu wa ta'ala defal leen ay tawféex waaye jàppandilal leen ndax jamono ak i jafe-jafeem ak yitte yeeg yi nga xam ne moo ci aju waaye yàlla mooy yombal mbir yal na leen yombalal kenn mu gëne ñoo ngi leen koy ñaanal di ko ñaanal suñu bopp. ñoo ngi ci fukki fan yoo xam ne mooy fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski waaye ñu ngi ci weeru tabaski ci boppam nga xam ne mën nañ koo wooye weeru tabaski waaye mënees na koo wooye itam weeru aj ndax aj màkk da cee nekk te mooy juróomeelu ponk ci lislaam waaye weer wi itam di weer woo xam ne wala fukki fan yoo xam ne dafa làmboo ay ngëneel yu bari ci loolu laa nekkoon démb ak bërki démb tey ji itam ci la ñuy dellu siwaat waajale ko li nga xam ne mooy tabaski gi ndax moom kat soxla na nag aw waajtaay soxla na xam bu baax li nga xam ne moom la ñuy defi mooy lan balay loolu jagle yi nga xam ne fukki fan yu njëkk yi da koo am nga xam ne dafa am ay jagoo yum am yu baree bari waxoon naa la ne bokk na ci jagle yooyu li ci njëkk mooy borom bi subxanahu wa taala di ciy giñ ci téereem bu tedd bi. te mooy ngiñam la mu waxoon ne wal fajri waaye tekke ne wala yaalin asri ku ne xam na ne giñug borom bi subxanahu wa taala li muy xibaar li muy tegtale mooy tedd la muy giñ ak loola ay ngëneelam aku mbaaxam ndax borom bi subxanahu wa taala tedd dafa màgg kon ci lu màgg lu tedd ci lay giñ waaye lum dëxëñ ay yiw yu baree bari ci lay giñ. mu bokk ci yeneen jagle yim am te mooy bu ñaareel bi mooy borom bi subxanahu wa taala tudd ko ci téere bi tudd gim tudd fukki fan yi ci téereem bii di alquranul karim tudde ko eh, al ayam al maalumaat loolu nekk aw rëdd woo xam ne borom bi da ca da caa yoonal bëgg ñu di ko ca fàttaliku bëgg ñu ko ciy tudd nga xam ne li gën a eh, yayoo ci fan yi ñu nekk mooy fan tuddu tudd yàlla la. wa yadkuru smallahi fi ayaamin maalumaat ca suratul xajji la ko yàlla wax ma waxoon la ne boroom xam-xam yi firi alquran dañ ñëwoon al ayaam al maalumaat hiya al ayaamul ashr al awwal min sahri sil hijja maanaam al ayaamul maalumaat bis yi nga xam ne bis yu ñu xam la ñu ne mooy fukki fan yi njëkk ci weer wi nga xam ne mooy weeru tabaski bi weeru sil hijja ñetteel bi ci yu fukki fan yi mooy jëf ci jëf yu baax waxoon naa la ne yonent bi nee na bis yi ñuy jëf jëf yu baax yépp def ko ci fukki fan yi daa bokk ci yi nga xam ne moo ci gënal borom bi subhanahu wa taala yemu ci ci benn xadis mu ne ma min ayaamin aadamu inda allahi wala ahabu ilayhi al amalu fihinna min haathihi al ayaam al ashra daan ne faksiru fihinna mina takbir wa taxlil wa taxmid nee na bis yi nga xamante ne eh, ci la ñuy tudd yàlla yenn bis gënu cee màgg yàlla gënu ko cee bëgg fan yi ñu nekk di fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski mu ne kon na ngeen baril lu ngeen di bàkk yàlla ci allahu akbar waaye na ngeen bari lu ngeen di taxlil te mooy laa ilaha illallah na ngeen di bari itam lu ngeen di taxmid te mooy di wax alhamdulillah lool na bari allahu akbar laa ilaha illallah alhamdulillah defe naa moom nga dégg ñay eh, def bàkk ya di wax allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd mi ngoog allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na nañ ko baril ci fan yi nga xam ne fan la yoo xam ne fan yi bàkk borom bi subxanahu wa taala la ak tudd ko na nga koy bàkk ak foo mën a nekk ci biir fukki fan yi ci la bis bi ñuy wax yow mu tarwiya nekk yow mu tarwiya mooy bisub juróom-ñetteel mooy bisub juróom-ñetteel ci weeru weer wi ñu nekk nga xam ne ci la aj màkk gi di tàmbali bisub bu dee ci ñi jàpp ne arafa day nekk talaata mooy nekk altine mooy bis bi nga xam ne mooy bisu yowmu tarwiya nga xam ne ci la aj màkk gi di tàmbali waaye ci biir fukki fan yi ci la bis bu màgg nekk di bis bi nga xam ne mooy bisu arafa bisu arafa di bisu juróom-ñeenteel ci weer wi léeg-léeg ci ñun ci suñu gisiinu weer ñu am ci ak wuute gu ci am waaye ña ca aj ga di taxaw moom bis boobee ñu jàppee arafa mooy arafa léegi nag tegtalewul ne bu ñu arafa ba ca suba ga rek kon gannaaw tabaski nañ mooy tabaski ba nga nar cee coow waaye yow daal boo naree woor bis ba ujaajee di yendu ca arafa bis boobu mooy bis bi nga xamante ne ci ngay woor loolu beneen àtte la waaye li ma bëgg wax man maa ngi ci ndax polémique boobu neexatut a réglé xaw naa chronique ci ñun te daa bari détails yu ci nekk waaye bisu arafa di bisu juróom-ñeenteel ci weer wi ku ne xam na ne ci fukki fan yu njëkk yi la nekk moo ko jeexal ndax mooy bisu juróom bi nekk bis boo xam ne bis bu màgg la bis bu màgg la boo xamante ne lislaam da koy puukarewoo ndax ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk di bis boo xam ne suñ borom da ciy jéggale ay bàkkaar da ciy baale ay tooñ yu ko jaam yi tooñoon waaye da ciy goreel aw nit ci sawara di bis boo xam ne suñ borom day mel ne da ciy puukarewu ci jaam ñi da ciy ci jaam ñi ca kanam malaaka ya noonu la ko ummul muminin Aisha radiyallahu anha net leene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis bi ëpp lu borom bi subxanahu wa di goreel ci ay jaam ci sawara mooy bisu arafa waaw bisu arafa li ci yàlla di baal ci aw jaam. amul benn bis boo xam ne dana baal lu toll loolu mooy grâce grâce présidentielle yi nga xam ne suñ njiiti réew yi ñoo leen jox sañ-sañ yi ñu di ko def nga xam ne léeg-léeg bu tabaski jotee ñu am ñuñ baal baal ñoo xamante ne mérito woon nañoo tëdd ay pen waaye ñu ne ko am nga sañ-sañu baal leen mu ne baal naa leen dem leen ñibbi ñooñu dem ñibbi tabaskee ji seeni kër bu korite jotee ñu koy def léeg-léeg bu at jeex ñu koy def léeg bu ñuy feete suñu indépendance ñu koy def borom bi subxanahu wa taala noonu la amee ay fan yoo xam ne fan yi goreel jaam ñi ci sawarala day def day grâce waaw am ñoo xamante ne tënku nañ jatang nañ seen bopp ba nga xam ne sànni biir sawaraa ci def borom bi ni leen baal naa leen ci bis boobu waaw def ab liste def ab liste list liste bu rëy daan ne yéen ñi ñëpp baal naa leen bis bi ëpp lu yàlla di baal. ay jaamam mooy bisu bisu arafa bisu allahu akbar nga xamante ne day baale di baale ba jéggi na dayoo wax nañ ne bis boobu ña nekk ca màkka te bis boobu te yendu arafa suñ borom jéggal na leen ñoom ñëpp yemu ca waaye kuñ ne yàlla jéggal ko suñ borom jéggal ko xanaa baale gi foofu la yem ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi ci suñu dëkk demuñu aji bisu arafa boo ko wooree am ci tiyaaba yi suñ borom jéggal la yow waaw am ci tuyaabay suñ borom jéggal la danañ ci ñëw incha allahu taala buñ demee ba ca bis ba ak ngëneel yi nga xam ne moo ci nekk yépp ci fàttali rek ndax jaar nañ ci ay ati at yal nañ ci yàgg jaar maa ngi ci fukki fa yu njëkk yi ci weeru tabaski ak njariñ yi ci nekk waaye ku ne xam na ne bis boobu buy jeex ci guddi ga di guddi fukkeel ga mooy guddi gi nga xamante ne mooy guddi boole ga nga xam ne dajale na ñi aji woon ñëpp ci pàkk bu ñuy wax al musdalifa nga xam ne fala ujaaji di fanaan guddi fukkeel googu nekk ci weeru aj wi ginnaaw ba nga xamante ne bàyyi koo nañ arafa waaye mbokk yi doyoon na sëkk ñu ne ngëneel lu mag a mag mooy farata ji nga xamante ne mooy faratay aj aj màkka nekk ab ponk juróomeel ponki lislaam yi nga xam ne juróom la waaw ponki lislaam yi nga xam ne juróom la juróomeelu ponk bi ci fukki fan yi ñu nekk ci la nekk waaye nag ci la bisu tabaski nekk ci la bisu tabaski nekk bisu tabaski mooy bisu fukkeel ci weer wi nga xam ne dañ koy limaale ci bis yi gën a màgg ci bisi àdduna yi bisu tabaski daa bokk ci bis yi nga xam ne bis yi gën a rëy la ci borom bi subxanahu wa taala ci bisi àdduna yi ndax li ci nekk ci am njàng waaye li ci nekk ci ndam li ci nekk ci ndam xamoo ne bisu tabaski bisu ndam la. bisu ndam la ci jaam bu déggal boroomam subxanahu wa taala bisu ndam la ci borom bi ak cofeel gi muy am ci jaamam te bëgg koo ñàkk te bëgg koo ñàkk am na jaam ñoo xam ne yàlla bëggu leen a ñàkk waaye bëgg naa woon ñëpp ne leen it fi ma leen teg mérito nañ ko waaw naa woon ñëpp ne leen fi ma leen teg mérito nañ ko ñooñu nag ci la yonent yàlla Ibrahima alayhi salaam bokkoon nga xam ne borom bi subxanahu wa dafa am fu mu ko teg ba ne ko maala la def ngay sama xarit. wattaxada allahu ibrahima xalila waaye yëmut ci loolu waaye mu jaar moom fu baree bare baree bari ndax lu jiitu loolu borom bi daa wax ne wa isibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna borom bi di koy nome nag ne ko inni jaaciluka lin inni jaaciluka linnaasi imaama waaw rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna xaala inni jaahiluka linnaasi imaama borom bi nee Ibrahima maala def nga doon ilimaani nit ñi maala maala samp ci kanam jaam ñi kooku nag da koo war a méritoo moo tax borom bi subxanahu wa taala jaar ak moom mu jaar moom doom jëm am sax ca xol ba ba dëgër suñ borom ne ko rendi ko ndax jaamoo ma ko rendi ko laa la digal rendi ko mooy rendil sa bëgg-bëgg yi man maanaam yi takk ci sa xol bi rendi maanaa la ndax yàlla rey bakkan boobu tuur delet yitteelu ko ndax du tee muy yàlla bàyyi fi nit ki muy dund du tee muy yàlla. waaye li mu bëgg a wax mooy Ibrahima bul bëgg àdduna bul bëgg daraja bëgg njabootit bu mu dox sa digganteeg man xanaa xamoo ne am na koo xam ne njabootam ñoo ko àgg ci yàlla maanaam ay doomam ñoo ko tee àgg ci yàlla am na koo xam ne ay soxnaam ñoo ko àgg ci yàlla am koo xam ne alalam moo ko àgg ci yàlla moo tax borom bi tudde yooyu fitna moo tax borom bi tudde yooyu fitna alal jeeg doom yi borom bi nee na fitna la waaye mbokk yi fukki fan yooyu ci la bis bu nekk di bisu tabaski danaa ci ñëw buñ noppee ci fukki fan yi ci tabaski ak liñ ciy jàngeek taxawaayu yonent yàlla Ibrahima ak lenn ci ay jaar-jaaram lenn ci ay jaar-jaaram ngëneeli kon fukki fan yi njëkk yi nga xam ne ci la nekk yow mi ko tàmbaliwul woon na nga ci góorgóorlu sa kemtalaayal kàttan rawatina jaamu yàlla yi nga xamante ne bëgg nañ nit ñi def ko ci bëgg nañ ñi def ko ci ne moos amul sikki sàkk ci ne jaamu borom bi subxanahu wa ci jéem koo jege jegelu ci jéem koo jege jegelu ñu ngi koy amee ci topp yàlla moo xam ci ay wax la wala ci ay jëf ci mbir yi nga xam ne yoonalal nañ ko ab julit waaw moo xam jëf ja woor la moo xam julli la moo xam saraxe la moo xam bu dee wax ja moo xam jàng alquran la moo xam istixfaar la wala salaatu ala nabi wala bàkk borom bi la subxanahu wa taala ak di kañ loolu ci jëpp waxtu ak bépp jamono dañoo bëgg jullit bi di ci def kemtalaayal kàttanam waaye nag dañ koy feddali nag ci yenn waxtu yi ak ci yenn sabab yi léeg ñu ñu feddali ko ne gën nañ ko cee fonk gën googu fonk nag mu yóbbaale fukki fan yi nga xam ne ci lañ nekk bokk ci fukki fan yi nga xam ne fonk nañ ko ci lool bëgg nañ lool nit ki bari lum ci tudd yàlla. bëgg nañ lool nit ki bari lum ciy tuddu yàlla bëgg nañ lool ku bari loo ciy ñaan bëgg nañ nga yokk ci li nga doon jàng ci alxuraan njàngum alxuraan wërta dakk damay wax ni kenn ku nekk war ngaa am dog boo xam ne danga naan danga koy jàng ci bis bi nangam ju may jàng ci bis bi waaye nag buñ demee nag ba ci yenn bis yi nga ne dinaa ko yokk tey ndax nangam misaal tey nga ne bis danaa jàng ñetti isib yi alxuraan ci ñu ko doon jàng waaye nga ne fukki fan yi bis bi sax jàng juróomi isib wala bit kat dinaa jàng fukki isib nga xam ne dinaa fi am nangam wala danaa ci jàng kaamilub alquran lu am solo la waaye bari lool luy tudd yàlla wa yaskuru smallahi fi ayamin maalumaat borom bi subhanahu wa taala noonu la ko jàngalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci njubalam yi jubbanti yeeg orientation yi nga xam ne koy jox nit ñi mu bokk ci eh, wone ne nañ ci bari lu ñuy tudd borom bi subhanahu wa ci fan yii jagleel ko ko jagleel ko ko ndax ma min ayaamin aadamu inda allah wala ahaba ilayhi ala amalu fihinna min haadihi ayaam daane nag na bari lu ngeen ciy tudd yàlla mina takbir wa taxlil wa taxmid bari leen lu ngeen def ay allahu akbar ak laa ilaha illa ak ay alhamdulillah na bari lool ba ca bisu iid ba julli gaak ñëw gaak yépp nañ bari lool luñ ciy tudd borom bi subxanahu wa taala ak di ko bàkk ñu baax ñi te mooy mag ñu baax ña asalafu saalix dañ daan génn ca marché ya ci fan yi nga xam ne boo dajee ñoom ña ngay di tudd seen borom subxanahu wa taala dañ ko naan def ba nit ñi sax dañ daan ànd ak ñoom ca kàbbar ya topp nañ sax nit ki yëkkati baatam ca kàbbar ya waaw moo xam ginnaaw julli ba noppi nga xam ne fi mu nekk nii rek bu fukki fan yi bari nañu koy sunnaal ba buñ jullee ci jàkka wala julli mbooloo saa yuñ ba sëlmal danañ wax allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allahu akbar walillahi alhamd def ko ab diir mbooloo mi wax ko ñu door a tasaaroo noonu lañ bëgg it ñu bari ci loolu lu ñuy ñaan ñaan yu baax ci bis yi ndax màng yiw wi nga xam ne moo ci nekk ak xemmeem jamono ji nga xam ne doon na ko jamonoy jamonoy nangu ñaan ndax jamono la joo xam ne ki ciy ñaan boromam subhanahu wa taala suñ borom dina nangu ay ñaanam ndax dafa am jamono yoo xam ne jamonoy nangu ñaan la waaye bokk na ci yiw yiñ ciy def te di ko ci dabu mooy bari loo ciy naafila ndax daa bokk ci yi gën ci yi ñu jegee bi daa bokk ci yi gën ci yi ñu jegee jaam bi yi ngay def ngir di ci wut tiyaaba gannaaw bu farata yi jàllee la ci gën a farata mooy julli naafila julli naafila wutukaayu tiyaaba la wutukaayu tiyaaba la ba noppi naafila day motli yi manki woon ci faratayi yi naafila day motli yi manki woon ci farata yi yëmut ci loolu waaye daa bokk ci yi nga xam ne day sabab mbëggeelu yàlla ci jaam bi day tax suñ borom bëgg ja bëgg la bu yàggee borom bi da koy sop da koy bëgg waaye day tax borom bi defal ko nangu ñaan waaw nga xam ne ay ñaanam day nangu daa bokk ci yi muy sababit yëkkatikuk daraja daa bokk ci yi muy sababit faruk ay bàkkaar daa bokk ci yi muy sababit dolliku ay rafet rafet daa bokk ci li muy sababit dolliku ay rafet rafet moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan ci soññee ci naafile yooyu ci ay wax ak ay jëf moom ci boppam mu ko doon def ba tànk ya neewi ndax sante ko borom bi subhaanahu wa taala wax ne li jaam bi di defal boroomam li ca gën mooy lim farataal ci moom yàlla ko wax nee na li ma jaam bi defal li ma ci gënal mooy li ma farataal ci moom waaye sama jaam du dañ ci di góorgóorlu ci naafile yi ba ma bëgg ko bu ma ko bëggee doon léppam yonent bi nag da koo détaillé ne doon loxoom yi doon tànkam yi doon bëtam yi su ma ñaanee ma may ko bu musloo ci man ma musal ko moo tax saxaaba bu ñuy wax Sawbaan radiyallahu anhu nee na sa'altu an zalika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi ne ko maa ngi lay dénk bi kasrati sujuudi lillah na nga bari looy sa borom kon naafilaangu na nga bari looy sa borom fa innaka laa tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka allahu biha daraja wa anka biha qati'a ne yow dey doo sujjootal sa borom subhaanahu wa taala ab sujjoot mukk loolu ne suñ borom dana ci yëkkati say daraja ba noppi sippil la ci say ñaawteef waaw borom dana la ci yëkkatil say daraja ba noppi sippil la ci say ñaawteef kon bépp jamono buñ la waxee jamono bu baax la bu ñuy profité ci wut ba na nga ca profité ci naafila sa kemtulaayal kàttan da nga baril ko te bañ di ko nettali waaw kii julli guddi Eh, di góorgóorlu ci naafila ba noppi di ko nëbbu kemtalaayal kàttanam amul lu mënta amul lu mënta maye ndax yi manqué woon ci farata yi da koy mottali ba noppi day tax jaam bi borom bi subxanahu wa taala bëgg ko waaw day tax suñ borom bëgg la te ku yàlla bëgg sa affaire baax ndax bu la bëggee day jox ndigal waa asamaan ñu bëgg la bu boobaa itam waa suuf bëgg la te duñ ko sañ a bañ loolu mooy ku am ak nangu nangul nangulu nit ñi alxabul. waaw yal nañu ko yàlla defal waaye day tax nag nga am nangu ñaan mooy al ijaaba waaw am na koo xamante ne daa am al ijaaba day am ci nit ñi ku góorgóorlu ci jaamu yàlla li tax boo gisee ku baax ngay xencu ci moom ak mbaax banaan ko bul ma fàtte ci ñaan lii ngay dabu waaw li ngay dabu mooy dangaa njort ne moom am na al ijaaba am na ñoo xam ne lu wax yàlla mu def ko am na ñoo xam ne góorgóorlu nañ ci mbaax góorgóorlu ci jaamu yàlla ba àgg nañ foo xam ne lu wax yàlla suñ borom subxanahu wa taala def ko yàlla xam na ko luñ wax yàlla nag li ma ci jublu mooy luñ ñaan yàlla luñ ñaan yàlla suñ borom def ko ku mel noonu nag fexe bam ñaanal la wàññiwul dara nag wàññiwul dara ndax moom euh, léeg sax mën na ko bañ a xam ndax bu ko yëgee ba bàkkoo ko mu yàqu dootu nekkati waaye góorgóorlu ci ay naafila dana ko maye góorgóorlu ci ay naafila moo xam zikkër lay doon ba am ijaaba moo xam joxe alalam lay doon ba am al ijaaba moo xam julli guddi lay doon ba am al ijaaba moo xam jàng alquran lay doon ba am al ijaaba waaye daal am na li nga xamante ne mooy ak wuyu nanguluk borom bi subhaanahu wa taala te loolu nag nees na koo amee ci naafila naafila nag jamono yëpp lañ ko bëgg waaye jamono yi ma la waxee na la góorgóorlu ci lu baax ci jamono yooyu lañ ko gën a bëggeeti ci jamono yooyu lañ ko gën a bëggeeti mbokk yi bokk na ci fukki fan yi ñu nekk liñ bëgg ñu baril ko lool mooy baril ab sarax bari looy saraxe moo xam sarax euh, boo xam ne maddiya la wala maanawiya la loolu mooy sarax boo xam ne wax ju rafet la fuñ ko soxlaa nga rafetal sa kéemtalaayal kàttan wala sarax boo xam ne loo làmb ci sa poos la génnee ko joxe ko te yàlla tax joxe ko yàlla tax sàkku ci rek payug borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla defal leen ko yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jël ci seen alal di ko joxe te yàlla tax di ko joxe te yàlla tax moo xam ñi nga xamante ne ñun ñii dañ nañ ñu ko jox ngir ñu joxe ko te yàlla tax ak ñi nga xam ne ñu ngi koy joxe fañ koy joxe fu mu mën a doon borom bi subxanahu wa taala gis na lépp waaye bari bari looy sarax baax na lool waaye rawatin nag ci jamono jii ñu nekk sarax dafa am solo fu borom da koo tuddee sax bor bor yàlla nee na ku may lebal ku may lebal te booba kuy kuy joxe te yàlla tax loolu la bëgg yàlla neen dangaa mel ne ku may lebal man zal ladhi yuqridu llaha xardan xasana mel ne ku naan ana kan ci mooy ki nga xam ne dina lebal yàlla bor boo xam ne bor bu rafet la yàlla nee na su ma koy fay dama koy fulal fa yudaa'ifahu lahu wa lahu ajrun karim waaw nee na ma fulal ko ko ma fulal ko ko mu ñeel ko ba noppi dana ko ñeel ëllëg it pay gu tedd ëllëg yomal xiyaam bu ñëwee ma fay ko pay goo xam ne pay gu tedd tedd tedd lay doon yal nañu ko yàlla defal mbokk yi fukki fan yi la fukki fan yi gaawu tiyaaba fukki fan yi jàng alquran la fukki fan yi ñaan la fukki fan yi la fukki fan yi naafila la fukki fan yi woor la ci ku ko man fukki fan yi yëg la boo xam ne jaam bi da koy am ci boromam subxanahu wa taala ndax santaane yeeg joxoñ yi nga xam ne moo ci daje yal nañu ko yàlla defal. laa ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul akbar. allahu akbar laa ilaha illa allah allahu walillahi alhamdu allahu akbaru kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukuratan loolu nañ bari lool di bàkk borom bi subhanahu wa taala yal nañu nangul te nangul leen yal nañu defal kendalu jàmm ñu jaajëfal leen bu baax jaajëfal imaam alxaaji ustaas Alioune Sall moom la ñu bàyyee toogu bi ci waxtaan yi fi bàyyi ñaan borom bi mu nangul ko ajam sàmm ko ba mu dellu si ci jàmm ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum taala